mais un magasin encore une fois ils ont des magasins de 130 mètres carrés le plus ou le 200 mètres carrés mais xoolal buntu pousse-pousse yaa nga ca buntu ba tissu yaa nga ci pousse-pousse ci buntu ba yow mi di dox yow yaay dox ci kaw tali bi yow piéton bi ci kaw tali bi ngay dox Et pourtant ay hommes de tenue nga fa mais lolu c'est le devoir de Barthélémy Dias et je pense que dina ci dina ci jóg parce que war nañoo am trottoir bo xamné ne di nga dox aisément mhm. rue rue Tolbiya mhm. dañ ci wara a yooyu xamuñu ay magasin lañ xamuñu ay puxuus lañ xamuñu lu mu doon rutul bi yaa xam nga ko mhm. magasin yoo xam ne xoba ci biir garab bi la nekk xaw ma mais attends il faut que ñu mettre Sénégalais aussi à l'aise utal leen fu yu baax fu ñu mën a nekk ñu xam ne trottoir du lalukaay kaw tali du lalukaay mais ñoom tamit dañoo metti parce que boo leen wutalee fu ñu nekk aussi ñu ne duñu du du duñu fa dem. waaw xëy na ñi fi nekkoon amuñu fula waaye ñi fi nekk am nañ fula waaye man li ma jaaxal euh, euh, ñii ñuy wax euh, nu mu tudd ñii ñuy wax nu ñu tudd ambulant li tabliers là. Mhm. utul luñ leen fu ñu leen yóbbu. gis naa nag léegi ñoom ñu ne nañ leen utal fu ñu leen yóbbu maire bi nee na man aw fu ma leen yóbbu te pourtant ñun ñu leen utalee fu ñu dem dañ ne ñoom demuñu foofu aussi et l' état opposition opposition bi tey di leen yëkkati di leen déguerpi nekk ay fumiste ay rambaaj di leen won ne ñii dañ leen a bañ et l' état a reculé loolu kese la waaye yi fi nekk am nañ fulaak fayda ñoom ñi ngi liggéey ñun lañ ñu doon bañal ñun ñoom ña ngi koy def ñoom lu ñu bajaloon Macky Sall rek ils sont en train de faire

Baara Ndiaye li mu wax dafa tas kër yàq deru nit à vie jiñ ko sàcc jiñ ko ay tabax yu mu moomul jiñ ko du n'importe quoi kenn jëli jiw ko ak GIGM dañ ko convoqué pour mu ñëw soo ko ba mu defee diffamation yi dañ ko convoqué mu ñëw auditionné ko mu ñibbi këram ban Sénégal lañ nekk ban monde lañ nekk léegi nag da ngay toog yàq deru nit après nga dem toog ca tirbinaal maa ngi xaar ba Thérèse Faye baal ko loolu la ñuy xaar ba Thérèse Faye ne baal na ko parce que Baara Ndiaye ñàkk jom la. boo déggee mën fenam rek da ngay xam ne ku ñàkk jom la boo déggee mën fenu Baara Ndiaye da ngay xam ne nit ku ñàkk jom la ñàkk jom tax fu mu toog di jëw Ousmane Sonko ñàkk jom dong a tax fu mu toog di jëw Ousmane Sonko fu dafa fàtte naa la jox benn audio moom dafa fàtte barki dem bañ koy jëli ji muy daw di dugg ci ay douche ba tànk ba dugg ca saison anglaise ba bañ koy toj pour génnee ko ay jooyam da koo fàtte nit ku jàkk jom a ngi noonu nit ku war a taal boppam ni beneen drame boobu

xaama ah, kuudu ko xam naa daal mën nañoo fen Baara Ndiaye da ngay fàttaliku keroog bañ lay jël si nga dugg ca biir duus ba ba sa tànk ba dugg ca baxu duus ba ba ñuy toj chaise anglaise bi pour génne ko ngay làqatu ay policier da koo fàtte xanaa ñàkk jom ak say jooy da nga koo fàtte yow ñu nit ñu ñàkk jom am nañ waaye Ousmane Sonko leen gën a xam yéenay kan fii nga jëw Ousmane Sonko ba ne fang te am na beneen jëw jëw jëw rek ngay def dañuy fen bëgguñu sax Sonko Sonko bi ñu wax bëgguñu ko parce que boo bëggee nit ki da nga koy wax dëgg booy nit ki nit ki day àndak moom da am na ñoo am na ci ñoo xam ne ci ñooñu ma li tudd nii nee nañ ñoom bu ñu amee ñaari milliards rek bàyyi teel boobu de ñi nga àndal ñii ñi foo foo garabu garabu yeeg ñooñu ñoom de nee nañ daal ci ñii ma li ma dégg nee nañ am na ci koo xam ne moom nee na ñaari milliards rek lay ut loolu kese moo taxoon waaw waaw bu ci amee ñaari milliards rek après day day ba daal di bàyyi dem def yi fi boppam Sonko bàyyil xel li ma la wax ay warkat nga àndal ñi nga àndal tekki wuñu dara diggante démb ak tey ndax segam Thérèse Faye mii la ñu mën a toog di leen waxal lu bon di leen waxal lu ñaaw asama yow mii Thérèse Faye la mu def ci ñoom yow defagoo ko ci ñoom xamal nag looy jëflanteeg ñoom loo leen di jox xamal noo koy defee loo <laughs> ah ah, ah. lima ma gis si kanam war a ñëw ci suñu biir dëkk bi. mais est-ce que jotul mu mu mu mu jeex ci ci ci réew mi peut-être on espère. avec avec ces assises non xam nga Guy Sagna comme que il a toujours fait il a dit que maintenant affaire saaga nit affaire diffamation dañ ko wër mais loolu dafa yomb torop ma yor samay doom yor samay sët yor samay jëkkër. yor samay jabar yor samay jarbaat nga toog bëgg a yàq sama der jël jël ay photo caricature mais ma après kenn du la wax dara kon man saa yi ma xëyee ma saaga président de la république ak Ousmane Sonko di su ma nee des femmes est-ce que waru jeex ci ci ci réew la yow mais Guy moo demandé lool moo tax man la kon loolu day neex ba mu ëpp mooy ñun ñun en nit yow en tant que person nga defaat seetlu ci sa bopp xam ne am na yenn yoo xam ne waroo ko yëkkati ko teg ba ma xamee ba tey mës ngaa ma diffamé nit ci ci ci ma rus naa ko teg ci deru nit loo xam ne leeru ma xaw ma ko mhm. loolu en fait il faut xam nga ñii di def yii dañoo nawloowul seen bopp moom laa lay wax il faut nga nawloo sa bopp il faut nga am loo jomm il faut nga am c'est-à-dire ak seeka ñii di def lii amuñu c'est-à-dire amuñu seeka amuñu ko ñom li ñu am moy sen neex-neex nañu neex nit mo tax may conseil ko ne ko moytul ma ñi bul am ak ñoom benn affaire ni yow la ñu mel wala ñu raw la ndax yow amoo bàmmeelu biir ñii amuñu bàmmeelu biir looy jëflanteeg ñom nay lu leer bés bo leen woné ginnaw parce que amo temps bo xamné chaque jour di leen wara gis mais ben yoon lañ lay soxla ñu leen gis ñu jël seeni micro c'est ça le Sénégal. Ben yoon lañ lay soxla di la gis chaque jour président Diomaye ñi ko daan gis chaque jour dañ ko mën di gisati c'est un président. Mm-hmm. il a il a daf may gérer gérer la gérer keneen ak keneen kooku amatul jot di gis ak nit. biñ ko nommé rek papa nee na toog na deux semaines gisatul doomam jaaxle. ce n'était plus ce n'est plus ce plus le Diomaye qui était là ñuy toogandoo réunion di waxtaanandoo. Mm-hmm. maintenant c'est le président de la République il n'a plus ce temps là duñ ko ko permettre sax. Ah. entourage ñi nga protocole ce n'est plus euh, élection comme mhm. recevoir il prend un dimanche wala jour recevoir am ay nit nitam ay am wol ma diw wol ma diw wol ma diw waxtaan. comprendre parce que ce n'est plus le le que nous.